60 minutes chrono yéen a ngi seetaan Teranga Sénégal salaamaaleykum di eu samedi bu jot ci waxtu wi di émission politique bi ñi ci daral ñi nga xamni ñoy yëngu ci émission politique waxtane wara waxtane li nga xamni nak mo soxal doxinu réew mi. ci politique. nak tay ma dalal ci ki nga xamni moy Moussa Diaw di porte parole de l'union régionale PS Thiès secrétaire général section Randoulen nek membre du bureau politique fonctionnaire international di ancien légionnaire euh, Moustapha ñi ngi lay nuyu. salaamaaleykum bisimilah rahmaani rahim barke Cheikhul Khadim Pape maa ngi lay fay. Eh, di la ziar di am kontante di ñëw ci télé Sénégal télé Sénégal nag suñ ko waxee lu am solo la. Teranga eh, Sénégal Teranga Sénégal mooy Sénégal rek. Mhm. <laughs> télé Sénégal Teranga Sénégal. Mhm. donc mu ñëw mu nekk biir Thiès fi nga xamante ne fi lañ dëkk fi lañ cosaanoo. fi mhm. lañ defee suñu lépp. donc su nekkee biir Thiès ak ñu ñëw pour la première fois gis ni mu taaroo xam ne télé yi nekk Dakar yóbbu luñ ko dara loolu day montrer une fierté que ne à Thiès fa ñu nekkoon ba léegi jóge wuñ fa et les dignes fils essaient d'améliorer dans le bon sens fi nga xamante ne ni foofu la Sénégal war a jëm waaye teraanga Sénégal daf ko war a rester pour toujours jërëjëf mi ngi noonu xam naa bu ne sa papa Eh, yak di jelaan ngeen eh, jëmma jotal ki nga xamni moy ya, masamba sa masamba mi nga xamni eh, mbay moma nekkal fofé ci région bu Dakar di suñu correspondant fofu mu ñëwuñu si ci situation bi nga xam ni moo am foofee ci cité Keur gi ndaxte euh, ay fi may wax ak ma nga fa euh, di ñu jëlal la situation am na ñu wax ni euh, foofu nag kenn barricade wu ko gis nañu waa Pastef génn ab communiqué wax nii dañ ko barricade ba léegi kenn mënul am accès ci Ousmane Sonko loolu lépp dinañ ci ñëw indi ci ay leeral yu gën a yaatu lu may loolu itam Moustapha ki nga xam ne moo toog jàkkaarloog yow buggoon a xam kan mooy Moustapha Diaw son parcours ci wàllu njàng mi ci wàllu politique bi lan lay doon vais vous présenter sa bop day xawa jafé jafe. Mhm. waaye damay tambalé ci fi muju jëm fi li gëna yag mhm. alors actuellement je suis fonctionnaire. Mhm. di au niveau international di représenter Sénégal ci un organisme sous-régional. Euh, pour baña def publicité xëy bañ mën naa ko bu lolu wéss wé j'étais cadre à Dakar Dem euh, bi may di France j'étais directeur d'une télévision mhm. à Dakar mhm. Lolo, c'était en 2013 mhm. lu yeesu Lolo, Bimaye ma suma bac def deux ans à l'université de dem France pour continuer suma jang waaye qui ci walu droit la woon donc waaye yalla dogal ci France jamono yooyu lo bourse Buga jang france wara a fay néeg te sénégal niñ ko jàppe woon mooy ku dem france tekki na mhm. nga bàyyi ay waay jur mhm. ñaar ñoo am dem liggéeyi bañ a jàng wala jàng fàtte ji nga fette ñi nga bàyyi ginnaaw mhm. ñun ñu choix ne comme yakar, pesé wu na sunu kaw te dañoo ñaan yàlla bañ a tas yaakaar ci sunu nyu ñu def choix ne dañuy dem liggéeyi yàlla dogal ñu dugu à la légion étrangère mm -hmm. d'une armée d'élite euh, pour Amal a amal njariñ askanu àdduna bi yépp mhm. mais amal njariñ Sénégal ndax mhm. sunu wajur ak sunu njabot biñ fi bàyyi woon te ñoom am nañ part bu am importance ci sunu dundu donc mhm. ñu def risque yoyu yépp pour sunu njabot donc on a fait un parcours de 8 années et quelques à la Légion étrangère après paré pare wat ñu waté am ay diplôme décidé nag ñibbi si waat Sénégal pour servir suñu réew parce que le président de la République Macky Sall mérite mhm. e, bu mag la am ci parce que bimu mu nguur gi daf ne cadre yi nekk bitim réew dama bëgg ngeen ñëw ngeen jàppale ma te ku seetlu ni muy doxalee gis mhm. nañ ne génération sama génération ak xeyna sax ñu ma gëna doon ndaw mhm. am nañ ay ndomba tank yu reuy reuy reuy reuy ci pour liggéeyal Sénégal pour gëna jëmale kanam Sénégal D'accord. mooy présentation bu gàtt bi xëy na soo amee leneen lu ñu bëgg a xóotal ci wàllu politique kañ nga ci dugg alors ci wàllu politique faut dire que politique quand même engagement bu bu may doon xalé bu hmm. légui ndax bi may def école primaire en 88 defe naa di def CM2 ci grève bu metti ba en étant à l'école primaire hmm. ma doon génne ek xalé yi hmm. euh, bi ma demee au collège aussi j'étais président du foyer dem au lycée Malick si bokkoon ci foyer bi ba c' en classe de première en tant que meneur ci jamonoy parti socialiste lañ ma dak ci grève quatre vingt quinze quatre ma classe de première mais bàyyiwuma suma bàyyiwuma jàng euh, ma dem Dakar ci suma benn nijaay de passage maa ngi koy nuyu monsieur Abdou Thioune alors di di jaay ay biscuit ak ay dàll ak ay bassang di wër Sénégal. qu'est-ce qui s'est passé ben jour ma jaar Mbour doon dem Kaffrine di livrer ji fofu ma gis les élèves de Mbour baré tali bobu ma école day doora a rek alors je me suis posé la question man est-ce que li may def ni li nek un commercial est-ce que lolu lañ ma dessiner je me suis dit non xalé yi di def ni li motax ñu dakk ma. kon warna muno mën continuer suma jang. ma dem gisi suma xarit yi nga xamante ne ñoo bokkoon ñu abal ma ma dem lycée malik si ñu abal ma ay kaye terminal bu may dem di jaay may jàng def candidature libre bac et j'ai eu mon bac d'office donc moi j'ai pas fait la classe de terminal ci auto laa ko defee classe terminal dem université continuer di nek meneur ba yàlla dogal ma taseeg Ousmane Tanor mu ministre d'État chargé des affaires présidentielles nous un leader mu convaincre c'est en 1996 97 la dugg politique. en créant le mouvement union des non coordination des élèves et étudiants pour le soutien à l'action de Tanor. Mm-hmm. socialiste. Mm-hmm. je suis le porte-parole de l'union communale de Thiès. Mm-hmm. et secrétaire général.

parce que loolu moom mooy amal njariñ la parti parce que dañoo am parti boo xam ne dafa war a dellu siwaat au pouvoir te ci loolu la ñuy dox. d'accord loolu loolu leer na dinañ ñu loolu dina ci ñëw mais li ma wax rek papa ñu jéem a jotal ma Samba mbay su ma correspondant su ma ndaw li nga xam ni moom ma nekkal foofee ca région bu dakaar mu wax ma la si un la situation de de cité Kër Góor gi bu fekkee mi ngi en ñu ànd ak moom ma Samba alo salaamaaleykum. mi ngi en ligne wala papa allo Massamba. papa boo mënee am des images en illustration papa xam naa ne jënd nga di nga ko di nga ko di ko di nga ko indi incha allah ma masamba ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu. nag mbaa yéen a ngi bu baax. waaw maa ngi sant de maa ngi sant alhamdulilah. alhamdulilah pour la a à Kër Gorgui. waaw euh, policiers yi ba léegi ñu ngi fa. allo allo. alo alo dafa mel ni diggante bi dafa neexul de DJ Line dafa dafa tëb walla allo ñu jëm ma jotal ma sàmba mu ñëw ci la situation à à Dakar plus précisément foofee ca cité Kër Góor gi. nga xam ne am na ab communiqué bu waa parti bi Pastef def wax ni euh, ñu ngi ko barricadé ba léegi ñu bari mënuñu am accès ci seen euh, leader boobee di Ousmane Sonko gis nañu sax waa yeew yi def nañu benn conférence de presse ñoom nee nañu le 25 dañuy dox marche dem euh, dindi barricade yooyu nga xam ni moom la def buntu kër Ousmane Sonko. Ica bu fekkee mi ngi en ligne moom Massamba Mbaye ñu ànd ak moom. oui mu ñëw ñëw sur la situation à Dakar Massamba. allo oui. Massamba na nga def. ñu ngi sant bu baax Pape. ba yaa ngi ci jàmm. waaw ñu ngi sant bu baax. naka naka Dakaru Ndiaye. ah Dakaru Ndiaye comme ni ñu koy waxee rek euh, mbir mi daa centré wu carrément ci cité Keur Gorgui. waaw bi nga xam ni mooy gox bi nga xam ni moo gën a am sécurité. waaw ndax force de l'ordre yi ñu ngi ko fees dell. Mhm. ñu Ousmane Sonko mooy leaderu Pastef bi dañ ko barricade faj bi. waaw mu des que Babacar Ndiaye génnoon na ak balam. Mhm. dugal après dugalaat. waaw mi ngi mi ngi noonu bi nga fa bi nga fa bi nga fa demee Massamba allo allo Massamba. oui. Euh, demoon nga fa nga nga nga fekk fa takk der yi bi nga ñëwee situation bi nan nga ko gisee woon ci ci koñ boobee di Cité Kër Góor gi. waaw boobu boobu daanaka xaw naa ci ay rëbb yu bëri. waaw mais dafa ñëwee fekk leen ko trois personnes laa fekkal ci prière yi. waaw mooy euh, ñi nga xam ne tey na ñooy grade yi gën a ndaw. dañ ah. leen toogee automatiquement jaaxle di ma reetaan jékki-jékki moom saxar moom moom ah. suñu commandant chef bi. Mhm. muy euh, le chef bi. waaw. léegi moo tax ñu après expliqué ko ne ko dama dégg des informations ni barricade bi dañ ko léegi dañ ko war a jël image. Mhm. nga xam ne mu ne ma carrément amul autorisation. Mhm. pour di ma may ay jël image. ba pare jot waxtaan bi wax ne jotul benn autorisation bi nga xam euh, def loolu. Mhm. mais mi ngi may ci ne ma carrément barricade bi mais mu nekk lu doy waar ndax foog ne yëpp autorités yi ñu ngi fa. waaw yenn accessibilité yi amul ko. Mhm. maanaam ni nga daan génne di bu ko neex que mhm. mhm. am na yoon yi bi bi nga ñëwee lan nga nemmeeku ak euh, askanu kër Keur gi ñoom li nga xam ne ñu ngi koy dund actuellement xam naa ne doon na lu doy waar. waaw comme ni ñu koy bi nga xam ne su nga dëkk nga aw yoon bu la neex amatu ko ndax am na yoon yi nga xam ne dañ tere. maanaam yi nga xam ne day ñëwee directement ci commune Koungheul wala ci yépp bu ko jege sax dañ koy tere wala balaa nga ñëw di nga am benn benn de sécurité maanaam ak de sécurité bi ñu jëlee ci fii nga dëkk. waaw derrière barrière yi nga dëkk. léegi nga xam ni ñi ko ñi ko dëkk dèjà nekkul en liberté. waaw te nekkul li nga xam ne lu leen parce que Mhm. ci ci ci ci mbiru li mu nga xam ne dafa libre mooy ki nga xam ne mhm. def lu ko neex taw bi respecté norme yi nga xam ne société bi dafa koy imposé. allo. allo oui. bi bi nga ñëwee waxtaan nga ak le commandant moom lan la la xamal bi nga waxtaanee ak commandant bi nekk foofu. waaw commandant bi jot nañu ci waxtaan. waaw waaye moom dañ ma ne benn autorisation bi nga xam ne. war naa mën a jël ko ay image mu nekk ki nga xam ni euh, déglu na ma daanaka wax nga waaw mais li leen jaaxaloon mooy man nan laa def ba yekk ci barrière yi parce que comme yi nga xam ni day mënee ko ñu Ousmane Sonko yëpp dañ ko barricade. Uh-huh. waaw mais nekk na ci nga xam ni macha allah jot nañ wax ma tamit position am bi nga xam ne respecté naa ko parce que foofu noonu doo ko seen benn benn journaliste benn partisan uh-huh. daanaka lépp.

oui Pape. mu mel ni bëri na nag ay yàqu-yàqu yu amoon foofee ca ca surtout seen dëkk boobu di Pikine de. waaw effectivement. waaw. Euh, euh, manifestation bi nekkoon na li nga xam ne dafa doon waar ba nga xam ne gars yi saccage doon jël maanaam di di ci banque yi. di ci yenn boutique yi. boo xoolee euh, oto banque bi daanaka teg nañu lépp te ñun ci ba ci plafond yëpp la ñuy ràpp saccagé ko. def tamit noonu trésor public Pikine. def BOA noonu Pikine. jet loolu tamit banque islamique bu Pekin ci bi te mu nekk li nga xam ne dèjà dina moom indi yenn yenn répercussion parce que jamono jii nii nii ñi nga xam ne ñi ngi dëkk ci gox bi am nañ nga doon difficulté pour mën a retirer seen xaalis mhm. ndax banque yi fonctionné bi te su ne dañuy buggee génn dem xool yeneen banque yi nga xam ne bi ci gox bi mhm. mu nekk lu mu nekk lu lu lu doy waar Massamba euh, noonu itam euh, laaj bu mujj bi ndax dinañ ñëwaat ak yow foofee comme yaa nga foofee moo mooy euh, dañu est-ce que nemmeeku nemmeeku nga képp kenn ku bokk ci Pastef wala ay militant wu Pastef yoo xam ni nekk nañ foofu est-ce que nemmeeku ko. allo. est-ce que nemmeeku nga ay militant Pastef yu nekk foofu Massamba. maanaam. waaw ay militant yu Pastef am na ñoo fa gis. ci góor gi. waaw. non non non foofu moom sincèrement kenn nekk parce que tey ñoo ngi doon waajal benn marche waaw ak suba ñu doon seeti leader yi waaw mais daanaka dañ leen ko tere d' accord waaw loolu loolu loolu leer na en tout cas maa ngi maa ngi maa ngi dellu siwaat ak yow desal foofee ci cité kër góor gi tamit lépp lu fa am rek nga def si ñoom papa ñu woo la ba keroog émission bi di jeex bu ko defee ñi ñuy suivre mën a xam li nga xam ne moo xew actuellement nii foofu ci cité kër góor gi incha allah jërëjëf waaw jërëjëf merci cant ak ngërëm ñel na la mi ngi noonu Massamba Mbaye suñu correspondant bi ñu nekkal foofee ca région bu Dakar actuellement ni mi nga foofee ci cité kër góor gi di jël information yi nga xam ne mooy la la fa am ngir mën ko euh, partager ak yéen ñi nga xam ne yéenay émission bii di 60 euh, minutes chrono euh, Moustapha. Mhm. laaj bi lenn la ci ginnaaw bi ñu waxtaanee ak moom ci la xew Dakar dañu toog ñetti fan yoo xam ne ay manifestations yu violente violente am ci réew mi am ñu bari ñu ci ñàkk seen bakkan lan nga japp ni moko moko waral lan mel. analyse bi donc euh, xeyna décevoir nga hmm. parce que su def analyse bi en tant que un citoyen non encarté D'abord, hmm. cest que faru ba fenn. mais ah. jangat benen bi que tek ko ci suma taala hmm bi ci analyse bi ci Sénégal am ay ni population bi ñu koy dund te di xaar ay réponses te réponses yooyu jotaguñ ko ndax fi manifestation du la am Sénégal première manifestation yu am Sénégal 1958 la amaguñ sax indépendance. 10 ans après 1968 nous avons indépendance. l'indépendance. Nous avons eu ay manifestations yu manifestations 88 92 2008 loolu lañ ciy jàngat parfois nous avons eu l'usure du pouvoir en communication politique dafay daal di ñëw ci Nous dañuy dem ba population bi président su demee ba am huit ans d'exercice ak une constitution ni ñu ko dañ ko tëgg loo xamantene ni régime présidentiel la xëy na loolu dinañ ci gën a xóotaat ci yeneen émission ba nga xamantene ni lépp lu baax lañ naan président bi la mais bu amee dara lu bon rek dañ naan président bi la xëy président de la république mu ngi xar dàllam pour di saafara jafe-jafe askan bi mais le fait que constitution bi tëggee woon noo xamantene ni lépp ci moom lay dellu siwaat loolu problème la ci jafe-jafe loolu jafe-jafe bi ñëk bi nga xamante après président bu fi am lu ëpp huit ans de mhm. pouvoir da ngay am rencontrer jafe-jafe yu mel noonu benen bi nga xamante nak mo gëna factuel manam ci ay feela tëkku moy que population sénégalaise bi dafa am nit ko xamante ne dafa yoré un discours bo xamante ne il se retrouve dedans mhm. té loolu liko gëna gën moy ñun ñi nga xamante ñoo au pouvoir c'est-à-dire qu'on a créé une bipolarisation de l'actualité politique au Sénégal. Et là, je pense que nous y aurait communication État. Nous devons faire des jangat. Bipolariser l'actualité politique, ben ce que ben nit le boutahaou ak un président de la République. Nous avons li nga que ni mom mo li waron nek li gëna am parce que nous dëgmal ay élection présidentielle nous wara wax ci bilan wara wax ci projet. Alors que tay actualité bii nga xamante ne nii lëmbe na réew mi ba créer ñaari communication kese yuy am ba population bi ñu ngi leen di naxasal seen xel ba li ëpp importance mooy fii ak huit mois kan la ñu war a fal mu nekk président ak lan la ñu war a teg suñu loxo wala ban yaakaar perspective d'avenir la ñu war a jox lëndëmal nañ xelu sénégalais yi ba loolu yëpp nekkatul seen seen xel léegi nag li xew nii suñ ci dikkee man jàpp naa ne lu ñu war a regretter la. parce que nag Sénégal ñun ñoo ko ñun ñëpp te amul intérêt benenit, nit bu war tax bakkan wara a amul loolu lima ma bëgg a wax foofu mooy ki bëgg am ak ki bëgg a mbir mi war nañoo xam bakkan bu tuuru gàddu na ci seen mbagg te ñun sénégalais yi ñun ñi nga politik, warna ñooy def politique war nañu tegat. perspective boo xamante ni ngir li ñu digganteeg askan bi la muy jéem sunu kéem kàttan ci pexe yu sell te dagan ngir mën a saafara jàngoro ak jafe-jafe sénégalais yi ci cas boobu loolu laa ciy wax di ko regretter parce que bugguma dugg ci yenn détail détail yoo xamante ne ni c'est personnaliser le débat parce que mois je refuse ça dañoo jëm ci ay perspectives. Moustapha yu am solo. Moustapha dafa dafa dafa dafa am ay ay ay ay nit yu ñàkk seen bakkan. Hmm. ñii di wax ay 23 personnes ñii di wax ay 16 état ni 16 wa am na si ni vingt personnes ñu ñak seen bakkan ñu wara def ay enquêtes dëkk bi l'économiste may sa babu ni il nous faut au moins 200 plus 200 milliards pour ñu défarat li nga xamni mo moo jotee yàqu loolu laa wax ni la responsabilité kan la man li nga wax ni dafa leerul sama bopp aussi waxoo ma ni kii moo ci am responsabilité bi waxoo ma kii moo nekkul ci yoon da nga wax lu leer Moustapha te dama bëgg aussi nga wax lu leer ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre aussi yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci benn bokk yaakaar kan moo war a endosser cette responsabilité lan moo tax mu ñu dem ba egsi fii. Euh, je pense que. damaa déggul nga tudd ci kenn soo ma xamee non dama ne xam nga damaa njëkk a wax benn affaire. soo nekkee communicant dama ne man je refuse la bi bipolarisation bipolarisation de. l'actualité politique ñu bëgg par contre il y a une responsabilité et la responsabilité qui a le devoir de déterminer cette responsabilité c'est l'État du Sénégal ce n'est ni Moustapha Diaw ce n'est ni Pape Tchoun... ce n'est pas une autre personne c'est à l'État du Sénégal qui a l'entière responsabilité de déterminer qui est le responsable réel de ce qui vient de se passer vous savez 23 morts 23 morts le Sénégal a vécu un drame qui a fait plus de 2000 morts. Ça veut dire que c'est 1% presque. Je ne minimise pas les ah, morts. Non, non, non, je ne minimise pas. mais de me dire 23 2000 non. personnes qui De me dire que 2000 bonnes circonstances Moi, je vais être. bonnes circonstances. Je, vais être, je vais être franc et cash avec vous parce que moi, je ne fais pas de langue de bois. un lu mus a dee loolu Sénégal. et que les gens ne se sont pas intéressés. ci ban ñàkk bakkan ñàkk bakkan. non ci non non mënti doon quelle que soit la circonstance aussi ci ban circonstance. lan lan moo indi woon 2000 personnes yi ñàkk seen bakkan loolu lan la woon ak ñii 23 yi ak ñii ñàkk seen bakkan si lan moo ko indi woon. est-ce que mën nga ci ñëw bu nekk li ko indi woon. bu nekk li ko andi woon. mooy surcharge du bateau la Joola. waaw ba dee am ci. d'accord jusqu'à présent. aucune enquête. waaw claire déterminée wul. Mm-hmm. quand mo am responsabilité et mhm. pourtant plus de 4000 orphelins sont ci 4000 mhm. est-ce que ces morts là sont moins importantes que les 23 je dirais que non mais aussi les 23 ne sont pas moins importantes que les 2000 mais li que bëgg wax fofu il faut que nous refusions ñun sénégalais bu les événements événement yi de bu ko tourner ci vie sénégal yépp tourner autour de ces 23 morts-là. Bien que Damala c'est à l'État de déployer tous les moyens qui sont à ses dispositions pour nous déterminer réellement qui est responsable de ces morts. Mais au préalable, Damala Wahnela, amna situation sociale, économique, boo xamante la situation politique actuelle mou ag, qui am responsabilité encore une fois déterminer le qui waral dee yoyu am moi je pense que c'est à l'état daf ko deful bobu ba Moustapha non lolou nga jàpp dafa am fi non 2021 mi ngi fi mars oui mi ngi fi de oui est-ce que wax ni déterminer ñu ñan ñoy fat bakkaru ñooñu ba léegi ni xam nga état suy def enquête est-ce que ba léegi déterminer nañ ko aussi xam nga dama lay wax ne la. man toujours damay yore posture. Uh-huh. un homme d'état état état suy def enquête waxuma nag man politique. dafa yàgg de. non xam nga état 23 morts nga wax. yàgg yàgg na trop sax. 23 morts kenn du ko enquête ci benn fan. nit sax day rey nit. am na ñu non 2021 sax laa dama ne am na ñu tëdd. dafa yàgg trop am na ñu tëdd prison ñu def leen sous mandat de dépôt parce que dañ leen a jiiñ rey nit ba léegi ñu ngi koy enquête xam nga kon bu nekkee benn nit à plus forte raison 23 mais dama bëgg ñu ñëw ci benn situation boo xamante ne l'État doit jël ses responsabilités je parle en tant que ancien homme de tenue bu def des opérations extérieures mm-hmm. un commandant de gendarmerie ou un commissaire de police qui a en face de lui qui est avec une équipe ou mhm. un groupe opérationnel mu am en face de lui 2000 garçons qui doivent venir tuer ces ces ces est-ce que day toog di seetaan moi je pense que non il faut que aussi les responsabilités que les gens soient di xool que l'état état bi ñooy jéem a ku ci naxa naxasa nga dal ku ci nek ci niveau bu mu munti tollu di jéem charger l'état parce que dañu foog ne bu ñuy charger l'état on charge les hommes politiques qui sont au pouvoir lan moo fi indi situation bi yëpp mais il y a ay acharnement politique nous xamni en 2024 quatre. kan mo joxe prétexte kan deux ans tenir le pays en otage deux ans Nous dañ koy viol et menace de mort ñaari atu yalla mhm. nit ñi di ci ñak seen bakkan. Mhm. ñu dem ba ci biir ñu ni nono topé corruption à la jeunesse et tu penses que dans un pays sérieux war nañu dem ba tollu fofu war nañu toll fii ay nit ñak ci sen bakkan. man da japp naane acharnement ci côté bu muuntine munti mëna nekk muy nekk homme politique ak mu nekk un homme ordinaire acharnement amul kenn ku am droit diko ko teg nit il faut que aussi ñu xamné être un homme politique ne te dédouane pas de tes responsabilités civiles so nekkee un homme politique ça veut dire que il faut savoir parfois assumer il faut savoir aussi être humble et accepter ses torts au préalable. Tellement moi, tort accepter tort torts vous savez. comme je vais être beaucoup plus cash. moi au lendemain de cette accusation de viol. si vous faites des recherches. j'étais invité à une émission à saint TV. Hmm, d'accord. quand tout le monde criait au viol moi j'avais dit en prenant le contre-pied de mes partenaires politiques. Hmm en disant que moi, je ne crois pas à la thèse de viol. Je n'y crois pas. Par contre, la personne qui était censée prendre ses responsabilités, ses premières déclarations, il a nié complètement d'avoir été dans ce lien Faites-le nier. Première conférence de presse. Si vous êtes un journaliste, refaites les première conférence de presse du monsieur concerné, il a nié ni avoir jamais mis les pieds. Les archives sont là, recherchez. Si conférence de presse, Ousmane Sonko devenu Moussoufadem. Première conférence de presse, sa première réaction, il a refusé, il a dit qu'il n'est jamais parti dans ce lien. Conférence de presse, wax lolo. Effectivement. Ça, Serigne bi yewit lolo bu fekkone amna kon yeen ngeen utiliser ko bi ak yewit na. Non. Xam nga tok ni ci presse bi wax bid wax ni dawma. Kon vidéo yi ngi daw Serigne bi xanaa kay yéen li nga wax moy ci page Facebook am ngeen wax ni fa la ko bindee mais pas toog ba togué reconnaître na dem na fa aussi. dama lay wax na wala lolu benen conférence de presse bu ken yëgul. première réaction. waaw du monsieur concerné. ah mais li ngeen wax moy Facebook ngeen waxone waxu len won dafa génn ci xam nga man man man waxu. bu fekkoon dafa génn wax ko kon. kon ah. vidéo yi mi ngi fi ñu reprendre ko aussi. je pense que. xanaa loolu moy mooy li gën a moi moi ah. je suis pas. je je suis pas je veux pas faire. Ah. je veux pas polémiquer. waaw liñu waxone ni ah. ñi ko waxoon ñoom la concerné. Ah, man lima lay wax ni parce que moi je suis pas le ah. porte-parole de qui que ce soit. en a ici. je dis mes propres pensées et ma propre conviction. Mm-hmm. ce que je vous dis là c'est ça me concerne moi et ça m'engage. ce que les autres ont dit ailleurs dans un temps passé ça les concerne. mais dañu gisul ben vidéo. bu Ousmane Sonko waxé ni man déwuma ma fa. li ngeen doon utiliser kay moy ni dafa bind ci page Facebook am après mo je supprimer ko mais amul ben vidéo bu ñu gis Ousmane Sonko ni man dem naa dem dew fofu aussi. man dama la wax ne la. su amoon exploité ngeen ko bu yag yéen it. sëriñ bi voilà l'objet de notre débat. je ne veux pas que ça tourne autour d'une personne. non ci non ce qui retarde notre pays non non non ce qui non si on fait une conférence. non mënuñu toog fii aussi te duñu wax ci loolu de. oui mais mais on en a assez parlé. moi je pense que poser ah. nga ma question. wax naa la ci suma xalat est-ce qu'on doit occuper prendre les deux tiers de l'émission pour ça parler d'une personne. Ça dépend ci li ngay aussi. moi je ça, pense ça dépend ci li ngay tontu non ça dépend ci li ngay boo toogee fini nii vidéo bu Ousmane Sonko def. non j'ai pas de vidéo. j'ai pas de vidéo point de presse c'est vidéo point de presse ku ko def kay. vidéo non mais utilise les les termes. point de presse non point de presse voilà mais point de presse beaucoup de c'est-à-dire que. il a une vidéo aussi mais il fait des recherches. ça on peut avancer Sur le derrière, des c'est bon d'accord def des recherches. d'accord euh, sa première réaction. était de nier qu'il est parti dans ce lieu. d'accord mais ça dit que man. Mhm. dama wax la. Ah premier son première réaction moi j'ai dit je crois pas. Mhm. et ça m'a valu des critiques acerbes contre moi mais je l'ai assumé parce que je parle de ma conviction. Moi, quand je parle de politique, je pense à deux êtres. Je pense à mes parents qui sont encore vivants et mes enfants. C'est pour cela que je dis des choses auxquelles je crois profondément. Maintenant, revenant de l'acharnement. Oui. Quand on est un homme politique, un homme public de surcroît, ñun ñëpp dañuy def des erreurs. Mhm. ñun ñëpp xëy na la mu def walla lañ ko jiiñ. Mhm. ñun ñëpp nekkoon nañ ci situation boo xamante ne ni su situation pareil bu présenté woon ñu amoon envergure bi xëy na nit mun na ko exploiter. Mhm. donc du coup li ko dal. yéenewuma ko ko. yéenewuma ko ko. mais nag dama ne. mënoon na koo freiner dès le début. ci nan ni ko mënoon freiner su doon man. assumer la relation bi nga xamantene ni quel que soit alpha amna ko kook ndaw si parce que ku tudd fatou ndjay ku ko xamul jiiñu ko yow mii koo xamul koo sekkalul dara. yaa ngi dégg li nga wax. du la gis non mais damay non mais bien sûr bàyyi ma wax. est-ce que yaa ngi dégg li ngay wax. mais bien sûr. non li ngay wax ni c'est grave de assumer relation bi nga xam ne am na ndaw si lu assumer ci lan. non xam nga pap waaw est-ce que yaa ngi li ngay wax góor nga non non non non attention. est-ce que y a rien mais mais mais mais Ousmane Sonko assumer relation bi moom lan mais lan. mais il na freiner. li xew ne man kon def. nga bëgg wax non waxuma de. waxuma Donc, soit plus clair. xam nga ne. viol. yow ak nga bëgg ne. na ak non ak ça fait deux nga nit ki du dara. xam en tant que Julie man mënumaa wax ne mën naa sekk naag wala sekkul ak ndaw si. parce que am na luñ ci wax. d'accord mais li wérte wóor mooy. waaw kii moom salon bi. Mhm. jiiñu ko ko. Mhm. parce que sekkul ak moom wala wéetul ak moom fu mu ko mën a jiiñee. Mhm. parfois war nañoo utiliser suñu xel ñun ñëpp. bañ a jiital par parloo parce que c'est le devenir du Sénégal qui est en jeu actuellement. -hmm le devenir du Sénégal qui est en jeu. Mhm. en cherchant à protéger une personne, ne serait-ce que même s'il subit parfois mhm. de l'acharnement, comme vous l'appelez, mhm. l'avenir du Sénégal vaut plus que la peau d'une seule personne. Il faut la les sénégalais nous réfléchir. Un État, si ah. parfois pour protéger le Sénégal, on envoie nos jambars sachant qu'ils vont mourir, mais c'est pour protéger le Sénégal. Mm-hmm. Est-ce que maintenant, pour protéger la réputation d'un homme, mm-hmm. d'autres, on, doit risquer la mort des milliers de Sénégalais mm-hmm. C'est pareil, je condamne ça. C'est pareil que je condamne un journaliste qui dit qu'on pouvait tuer 90%, des, Sénégalais pour Deflo loo pour Fagagal Ben D'accord man je cherche à être équilibré. Mhm. à protéger l'État du Sénégal la nation sénégalaise. d'accord qui est le parti socialiste Que construire depuis plus de 60 ans. d'accord est-ce qu'on doit pour la réputation d'une personne. Mhm. faire tuer des centaines d'enfants ou ne serait-ce qu'un seul un seul enfant. sénégalais ça ne vaut pas la peine. Mhm. il faut que sénégalais là je m'adresse au président de la République. moom moo de ñëpp moom moo war a soxla jàmm moom moo war wuti jàmm et ne pas écouter ñi nga xamante parce qu'ils sont encartés parce qu'ils ont des intérêts personnels par rapport à lui par rapport à ñu gis ñu gis leen ci gisin bu rafet ci bëtu ki nga xamanteni moy njitu rewmi ñuy dugg di wax lo xamanteni le président de la république soxla wu le président de la république lu mu soxla moy jamm ci rewum parce que mo koy permettre mu atteindre ses objectifs mais non ñi nga xamanteni ni ñu ngi xamb taal bi mu ku nek du côté des journalistes comme du côté des politiques ak du sénégalais lambda d'accord moi je pense que quand l'intérêt du Sénégal est en jeu tout le monde que ce soit journaliste homme politique homme social homme religieux ñun ñep ben focus lañu wara am mm-hmm. muy wax jàmm te jàmm jooju ñun ñëpp ñu diggal ko ki nga xamantene moy mooy njiitu réew mi pour mu talal loxo bépp sénégalais. bépp homme politique. pour que ñu waxtane suñu Sénégal pour que suñu Sénégal am ay ëllëg yo xamantene ni ñun ñëpp suñu xel dina ci continuer di dal mm-hmm. ni non le dialogue suit son cours le 25 juin sax euh, ci lañu ñu ngi xaar les les conclusions le président Macky Sall war wax ak euh, askan wi dialogue bo xamni ni Askan Wi bokku ñu ci euh, part Gëm Sa bop bokku ci dialogue boobu est-ce que jàpp na ni dialogue la deug deug vous savez ça aussi moi je pense que je vais être franc. Hmm. quand on voit bop yi nga xamé mom la ci politique bi. lay ah gëna réconforter ñun ñi nga xamante ni génération bu bees homme politique lañ. Hmm. moi je pense que dialogue baax na. Hmm. mais il faut que ñi dialogué xamné sénégal Sénégal. ñaari idéologie ñoo judduwaat ni actuellement. dafa am idéologie bu nga xamante ni nit ñi dañu bugg a def rupture ak politique ni ñu ko doon defee yaa 60 ans am idéologie boo xamante ne nii ñi fi nekkoon yaa 40 ans ou 50 ans ñoom ñoo bugg a continuer di préserver la pouvoir soo gisee ñi koon nekkoon ci ci ci kii bi naw naa leen lool fonk naa leen parce que ñoom ñëpp ne serait-ce que bu dee benn guddi toog nañ ko xeexal ko Sénégal wala xalaat lan mooy jëmale Sénégal kanam mais soo xoolee parterre bi fa nekkoon la moyenne dage était pratiquement de 70 ans. Très clair. Je pense que pour nous dialoguer le Sénégal plus de 60 de la population. à mhm. moins de 30 ans. Mhm. je pense que nous ñi nga xamante ne cette jeunesse là. nous mhm. nous ñu war gën mettre au devant de la scène. pour nous, le au Sénégal parce que le Sénégal la magnifique Nous mag ñi fa nekkoon ñoom ñoo ñu pour nous suñu ëllëg bi ñu

mun na les procureurs mun na les juges pourquoi on pense que suñu wara waxtane Sénégal on politique yi rek ñoo fa wara mhm. je pense que lolu luñu wara war la parce que c'est pas les hommes politiques seulement qui font un pays c'est un tout et que ci branche yëpp la wara a waru ñu nek rek bu ñuy jox invitation ñu yonne invitation yi que les partis politiques bàyyi jeneen ni mhm. ba je pense que lolu lu ñu wara mëna rectifier la parce que Sénégal lu ëllëg ni muy doxé du ay hommes politiques kese ñokoy défar defar couche société bi yépp ñom ñoko wara défar mhm. je pense que lolu moy suma xalaat le PS ne vit plus PS mom dundatul man mën nga jàpp sax ni mom nekatul ab parti PS mën nañ koo génne ci euh, parce que xawma la moy sen problème ba le bureau politique ken mënu leena a dégg moom ni au niveau national ni à Thiès moom kenn xamul lan la quoi c'est quoi le problème y a ay jeunes nekk fa nekk PS PS bu njëkk boobu tëral Moussa Ram ñu gis ab communiqué mais c'est c'est tout un problème lan le problème du PS ba tey PS mënatul a exister ñu bari di wax ni le PS ne vit plus lu tax loolu. loolu nangul naa la ko. ay la yéwén. Mm-hmm. li tax ma nangul la ko mooy constat la. te constat bu ko lu upp téeméeri nit defee. day daal di nuru dëgg. bu ko doolul it dina ko nuru te jàpp naa ne nuru dëgg lay gën a nuru. que hmm. leneen parti socialist au mois de juillet deux mille dix neuf hmm. yàlla dafa jël ki nga xamante ne nii moo nekkoon pilier bi gën a dëgër ci parti socialiste muy Ousmane Tanor hmm. yàlla bi mu defee loolu. Ousmane tanoor bi muy dem daf fee bàyyi loxo nday muy Serigne Mbaye Thiam. Mm-hmm. ak benn loxo càmmooñ muy sunu yaay Aminata Meng Ndiaye. Mm-hmm. benn loxo ndeyjoor bi ne ay la yéwén loxo càmmooñ bii moo war a remplacer Ousmane Tanor Dieng. dëggal mm-hmm. ko ñu critiqué ko ci sax ñu nekk ci parti bi ne lu tax mu ne Aminata Meng la war a doon. waaye mu amoon yaakaar ci moom ne Aminata Meng mii comme yàgg na ak Tanor xamoon na ay mbébétam kon. nañu bàyyi Aminata Mbengue mu jiite parti bi parce que ay la Yewen moo nekkoon président des femmes waaye ci ordre protocolaire u parti bi kon moom moo war a assurer l'intérim waaye ci biir assurance u intérim boobu moom it yàlla def see dogal yaramam di ci sutante lu bari. Mhm. ba li nga xamante ne nii loolu la war a def xëy na mënuñu ko woon def. Mhm. muy di dajale parti bi à tous les niveaux pour ñuy def lañ daan def comme ni nga ko waxee. Mhm. waaye boo gisee dafa am ñoo xamante ne ni comme seen métier politique kese la te ci ay ñaar ñu jaxase ay nit ba ñu xuloo ci la ñuy mën a amee boor bu ñu far pour mën cee gañe dara mhm. ñooñu def seeni pexe ba jaxase ñaar ñi nga xamante ne nii ñoo nekkoon loxo ndeyjoor ak loxo tam moo ñu tanoor daan doxal parti bi ñoom ñett muy kan kan muy ab Serigne Mbaye Thiam le ministre Serigne Mbaye Thiam

xam nga Pape. waaw yow da nga may provoqué. waaw moi je comme. non wax sànni nii rek boo waxee sànni aussi. oui oui non du wax sànni parce que li may wax. xam nga soo nekkee kilifa bokkul ak gone gi nga xamante ne ni dañ koy instrumentaliser muy dem ci média di tudd ay tur di provoqué ay nit. di ko waxal pour ay nit man romb naa foofu man kilifa laa. d'accord nekkuma kuy ñëw ci ay tele di tudd ay tur parce que ñooñu may tudd. Mhm. am nañ njaboot am nañ waajur. te am na loo ni lu rafetul kenn du ko wax diko ko diko ndayalé ko ndeyale nit. Mm-hmm. loolu man duma ko def parce que man ma mag loolu. Mm-hmm. waaye li may wax ñi mu intéressé dinañ xam kan la ak ñan la ñu jéem trouver des solutions puisque ay solutions la ñuy wut. Mm-hmm. parti socialiste liko ko tëgg ni fi ñu tollu moy ñi nga xamantene ni nii politique amuñu diplôme amuñu métier. mais kenn xamu leen aussi. non ñoom xam nañ seen bopp. parti social man xawuma leen man man xawuma leen. yow boo xamee seen tur it mënoo ko régler parce que bokkoo biir parti socialiste. mais dina tax ñi seeraan aussi xam leen. non non mais non mais loolu du njariñ li. parce que mais wax nii nii rek loolu après. non non non non Pape gis nga wax dafa war a am njariñ. d'accord njariñu wax mooy lan am njariñ soo waxee ni dafa am ñuy dugg ci diggante bi di jaxase nga ni diw ak diw. waaw non loolu yëfu xale la encore une xam nga wax buy am njariñ mooy lan oh. wax bi dul yàq waaye ki nga koy wax dana ko xam ba trouver solution dafa am wax. d'accord dafa am sénégalais lañ rawatina ay wolof déranger non xam nga ñu peut-être bol nañ leen ci fekk ñu ci aussi déranger ñu diplôme. waaw bu ko permettre mu prétendre am des niveaux de responsabilité. ci hmm. biir parti socialiste. xam na ko xam na boppam. responsable yi xam nañ leen. ki amul métier boo xamante ne ni bu dul politique du dund moom xam na boppam responsable yi xam nañ ko donc man li may wax mooy cest que loolu moo nekk li nekk li li li sooke bi nga xamante ne ni moom la parti bi di dund li ko sooxeloo mooy ñi nga xamante ne ni métier politicien lañ am. boo leen seetluwee ci biir parti socialiste am na ñu bari ñoo xamante ne seen falug ndomba tànk mu ngi dependre ci raamal ak dungurul ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk ndax amuñu leneen bu prox ndollu amee boo xamante ne mën nañu gën a asseoir ndax dinañ far ci benn boor dañuy far ci benn boor boo xamante ne nii dinañ fa mun a amee la ñuy yóbbu seen biir kër ñooñu xam nañ seen bopp jarul ma leen di tudd ndax am nañ ay njaboot te seen i njaboot seen yoon nekkul ci seen activité politique seeni waajur waaye boo leen tuddee rek yaa ngay blessé ñooñu te as gor dafay moytu di tooñ ndax soo waxuma da ngay tooñ ki nga ki nga xam mooy sa naataango politique parce que loolu bu pouvez vous permettre waaye bu ba fekkee ba am na njaboot ak waajur soo tuddee doomam ci safaan da nga ko tooñ ndax dana am lu ko metti te loolu man je me le refuse quel que soit sama position politique dinaa fexe di wormaal ni nga xamante ne ñoom ko sekkal ba duma ma blessé seen i waajur du ma blessé qu'est-ce qu'il faudrait faire lan ngeen wara def ba lolu am liñu wara def liñu wara def moy def un congrès extraordinaire ñu tab secrétaire général bu mm-hmm. bees ci bar socialiste ko xamante ni militant yi danañ am yaakaar mm-hmm. dinañ wolu gis-gisam waye dinañ xam li nek ambition par socialiste muy prendre le pouvoir et gérer le pouvoir pour le bien-être des Sénégalais ko ñuy tànn dana ñu jox boobu espoir ak ambition pour ñu mun kaa ànd ak moom pousser ko pour mu mun a jël li nga xamante ne ni moom mooy Sénégal ëllëg loolu nag li koy li koy permettre mooy ñu def congrès extraordinaire parce que nag intérim boo xamante ne ni romb na durée mandat. mi ngi bëgg a yàgg de. waaye dafa bëgg a yàgg. foofu laa d'accord ak yow xam nga parti socialiste ñu bari xamuñu ko parti socialiste ni muy doxee mooy congrès la tous les quatre ans ñu fal. secrétaire général Boubès. bees. waaye su intérim boo xamante 2019 nii la. juillet 2019. mille juillet 2023, mille vingt trois daanaka mandat bi bëgg un mandat complet. Mm-hmm. je pense que nit suy assuré intérim. Mm-hmm. dafay def kéem kattanam ba nga xamante ni ci délai yu gatt mu dem consulter waat base bi. ni man kat bëgg na nek candidat pour nek nak ko xamante ni nii ku titulaire la yéne ma wolu jox ma seen baat ñi nga xamante ne nii ñu ngi dagaan tamit baatu militant parti socialiste yi ñoom it sëmp seen digg ne ñun ñii wóolu leen ñu parce que am nañ bi programme loolu nag ki ko deful te am te def ko su parti socialiste deewee moom moo rey parti socialiste. loolu leer na loolu loolu leer na ci ci noonu itam dañuy jógee Dakar ñëw Thiès. Mhm. Thiès moom moo gën a moom moom moo gën a naasaay sax moom Dakar. <laughs> c'est vrai. <laughs> Thiès moom c'est c'est liy gars yi di wax coquille vide xaw ma. Hmm. tey c'est c'est c'est lu lu kenn mënut a comprendre ah ñii ñii jaar fii kii jaar fii. yow yaag Ousseynou Keita mi euh, nga xam ne mooy secrétaire général de union communale bu bu de de Thiès jubawu leen bu kii jaaree fii kii jaar fële ngeen koy tëb dem di dem Dakar kenn kenn du du laaloo ak sa morom du ngeen jaaroo taal. ba PS Thiès moom kenn tuddatu ko moom kenn waxatul sax ay mbiram moom existé wu leen dafa mel ni sax da ngeen la nga am ci waa APR xaw benn bokk yaakaar lan moo waral loolu à Thiès. li nga wax am na lu bari lu ci doon dëgg ndax lu ñu constaté la lu dëgg dëgg la euh, mooy que ne PS parti socialiste Thiès suñ ko seetluwee ak léegi de 2014 léegi mu am 10 ans bi ñu defee les renouvellement ba fal. falaat Ousseynou Kayta waa comme secrétaire général de lu ñëw communal ay la yëwén muy jéem lu mu man ak lu mu mënul pour parti bi di taxaw di dox di exister à Thiès ci kéem kattanam mu ngi def li mu man nit nag su fekkee yaa ngi def li nga man am ñoo xamante ne nii xëy na am nañ ay yéene romb li ngay def ngir njariñu parti bi liy mat mooy nga encourager ñoo ñooñu yëkkati ko parce que ala fala budda ba ba ñuy def ba ñuy defaat congrès mhm. di renouveler waat les instances

du ma xaar convocation parce que c'est le parti qui me convoque qui convoque les autres kon jéggiwuñ ko mais li ma bëgg a wax mooy li nga doon wax naan est-ce que ñu ngi koy jàppale mhm. xam nga ku mel man ak samay moroom suñuy mhm. jël suñu alal di def ci biir parti bi mhm. su parti socialiste amé dayo rayona parti socialiste ni muy doxé su cër génné ki ko jiite moom lañ koy jox kon kay kon ñu koy liggéeyal su Moustapha Diaw di jëlé xaalisam diko def ci ay meeting diko def ci ay dons qui militants et responsables d'organiser organiser vente des cartes de def ay meeting de mobilisation mais lolo defaluma ko suma bop parce que fala bout de parti de joxe du jox tepp Ousseynou. def de lolo ah hein? gëj nga def trop. kagn la gëj meeting mais Pape yow xanaa nekkuloo fi pap Kawe. kagn nga def. l'année dernière. L'année <laughs> dernière nga wax. Ah, moi chaque mois de mai j'organise un très grand meeting de mobilisation qui au moins on loue 2000 chaises et des fesses. loolu ñi man à Thiès que des hommes politiques vous êtes un journaliste très introduit dans le dans le milieu politique ñi ko man à Thiès bariwul demal ci Facebook wala YouTube nga tapé les meetings de Moustapha Diaw Vous pouvez ko vérifier su journaliste bi su xarañoon da koy jëli teg ko gaa yi gis man. papa demal nga defal ma les meetings de Moustapha <laughs> Diaw. papa defal ma ko xam naa ni ma ko génneel. les meetings de Moustapha Diaw waaw ah, non bu dee xarañ kay moom. waaw la fekk voilà donc les les meetings de Moustapha Diaw. ma xo ma xool Moustapha Diaw PS Thiès. Moustapha Diaw PS Thiès. c'est baax na ay ca waaw dina ko gis. xam nga lool su ma koy def. Mhm. defalu ma ko sama bopp. parce que parti bi su joxe cër du ma ko jox aussi Ousseynou la koy jox mais pour parti bi mën a joxe cër coalition bi ñu bokk il faut que ñu gis ne la parti socialiste est vivant Le Parti socialiste est animé, le Parti socialiste est mobilisé pour des victoires futures de notre coalition. C'est quoi le problème exactement Madame, quel est le problème, Moussafa PSA Thiès, c'est quoi le problème Je veux que vous le problème du PSA à Non, objectivement. Nous avons dit que PS Dundoul à Thiès. Quel est le problème deug, deug, deug. Non, moi je pense que... Ah. Aïe, le yéwé, si nous avons dit que nous avons parti le Parti Socialiste à Thiès maintenant suñu erreur mooy lan. Hmm. dañoo jox suñu kàddu coalition bi. ñu bah, hein. oui non mais c'est le premier c'était en 2016. c'était en 2016. bii c'était en 2016 Il y a des beaucoup beaucoup plus récents. am na yu ah, ah. ok d'accord. donc soo xoolee. Mm-hmm. erreur du parti socialiste def à Thiès. Mm-hmm. ak d'ailleurs même au niveau national. Mm-hmm. parce que soo xoolee même le parti socialiste dans les plateaux télé. c'est très rare que coalition bi di dem. ci débat nga gis un socialiste qui représente le. c'est ça loolu loolu kay. loolu c'est une erreur de communication. au niveau national. et au niveau local. am ngeen ci responsabilité aussi. non en tant que jeune yéen. mais mais oui mais c'est que. le responsabilité mais le problème demeure entier. c'est quoi xam nga politique. soo mhm. seetluwee ñi lay gën a sonal mooy ñi nga bokkal parti. très clair. gis nga yow. une politique fiiraange mu ngi nekk foofu. ça veut dire dañ bon man maay le responsable su ma deful kenn warta def te loolu ci parti yépp la du ci parti socialiste kese loolu ngeen di dund à dama ne la ci parti yépp ñoo koy dund da ngay gis ñoo xamante ne ni bii ci la bokk way bii ci la bokk ah. bii aussi ci la bokk. waaw ça c' était pendant la campagne bii bi yàggul. bi yàggul bi la c' était l' année dernière je pense. l' année dernière la. waay waay waaw kooku mooy Papa Papa dina a Abdou Mbow su may def meeting man. wala may def activité de mobilisation. Mhm. fu socialiste nekk à dama koy jëli. Mhm. loolu nag su ma na ci. xarañte bu ma yàlla may la ba nga xamante ne ni. Mhm. mun naa juboo mun naa mhm. mobiliser mun naa ànd ak samay camarades. Mhm. parce que tamit politique amal njariñ ki nga xamante ne nii moom la jiital daf cee am solo. te je pense que ñàkkuma njariñ ci par rapport ak samay camarades yi ma amal ci biir waaye li am ba des mooy pour continuer ci li nga xamante ne parti bi jàpp naa ne war nañ ko rectifier. sunu kàddu bi nga xamante ne ni dañ koo war di fësal. pour parti socialiste nous dit dégg. di xam li nga nous Nous nous avons parce que parti politique dit pour ñu même la que ñu lay Nous di la wax ngay wax. même à c'est la même chose aussi. ngeen dem ci télé yi xawma wala dafa am ku joxe pour nit pour <laughs> bon ah, en tout cas créer de ay un moment certains problèmes. ci. Mhm. Euh, responsable yi nga xamante ne nii daan nañ communiquer. di dem di waxal parti bi. Mhm. waaye su fekkente ne waxal parti boobu dafa nar a yàq plus que lu mu nar a defar ci biir parti bi xëy na dafa jar ñu toogaat ñun ñëpp ñu waxtaan sunu kilifa ñun ñëpp di Ousseynou Kayta joxewaat cap bu clair pour que parti bi mën a fësaat biir Thiès ba nga xamante ne nii échéance yi ñu jëm le parti socialiste dina ci am taxawaay bu dëgër ba nga xamante ne ni ëllëg su échéance yu passé parce que li am solo mooy parti socialiste lu ñuy waxtaan légui lañ ko wara a waxtaan ak coalition biñ nek Ah, surtout. parce que su élection présidentielle passée man nak lima gëm le parti socialiste war na am candidat. Ah. en 2024. dama ci wax question yi ci question la bokkoon way comme dugg nga ci. waaw waaw ah, bëggoon na ci question parce que vous avez est-ce que vous avez un candidat en 2024. pour l'instant de man yëguguma ko. amagu len candidat. waaye suma yéné waaw depuis 2019 ku def ay archives. yi ma def plateau yi su ma yéene mooy jàpp naa ne su candidat Benno Bokk Yaakaar waree am ci mille vingt 2024 yi sa doit être un lu tax parce que su fekkee da ànd ak nit pendant fukki at ak ñaar mhm. nga jiital ko ci yépp jox ko sa kaddu mhm. jox ko say militant ba xàmmeetuñ leen que ne ay socialiste ndax dañoo dañoo nuroo ak coalition bi couleur coalition bi mhm. jàpp naa ne nag suñ la accompagner pendant douze ans ñaari mandat su Benno Bokk Yaakaar waree am candidat dañ ko war a waxtaanee d'abord. mu am des candidatures multiples ñu def des primaire parti socialiste présenter un candidat. dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yaakaar je pense que loolu moom mooy àndu nawle àndu gor pour que parti socialiste. mais kan moo ci am envergure boobu aussi kan. sans de gants. pour moi. kan pour moi. le ministre Serigne Mbaye Thiam. a le plus de charisme, plus de compétences, mais plus d'engagement républicain pour mon au Sénégal si foo xamante ci dal perspective d'avenir digou pour l'Afrique, pour Sénégalais Sénégal. mais votre actuel <laughs> secrétaire euh, national non xam nga. Pape bàyyil toog ah non Pape moom mooy seen secrétaire national nga jéggi ko fa jéggi seen secrétaire national ni kenn non non Moustapha yow it nag kon yéen de yéen ñu ko def seen secrétaire général yow it xam nga kenn defu ko secrétaire général da ne intérim la ñëw parce que ci ordre protocolaire u parti bi moo doon ñëw juste après Ousmane Tanor kon par intérim. c'était normal sur waaw euh, coïncidence. mom motax tay mu nek secrétaire général waye nak ku ne xam nga li nga man jàpp naa ne moom sax buñ nako won ko nek candidat par socialiste en 2024 du ko bëgg ay la yewente jàppe naa ne wutu ko jéemu koo wut. Hmm. waaye ñun ñi nga xamantene ni ñom ñoy ñun ñoy ay responsable nek des militants. am nañu droit am mbébét joxoñ nit man mustapha Diaw li may xëy suba ak ngoon moy le parti socialiste am candidat à la candidature dans la coalition Benno Bokk yakar té bu amé lolu man ki nek suma candidat Serigne Mbaye Thiam la Serigne Mbaye Thiam la waaw loolu moom leer na nañ foofu moom xaw ma dañ gaanaan tunga ne du ñuy nataal way li nga xam moom lu leer nañ la sax mais Moussa élection locale yi ñuy jugee parti bi dafa jox ay directives mhm. mais toppoo lu tax lolu parce que dañu gis ñëw ci Benno nga dem and ak wa wa Thiès. xam nga bu Talla Le principe ak dogme politique moy parfois nga soumettre à ci décision majorité bi. Mhm. waaye pire par socialiste. Mhm. décision majoritaire da ci amul won parce que élection locale yi dañ ci au niveau national. Mhm. kon nak comme élection locale yi au niveau national que waxtaanu ci. fi au niveau local japp naane man. ñañu waruñu woon ànd ak bennoo bokk yaakaar. lu taxoon wala lu tax waruñu woon ànd ak bennoo bokk yaakaar. ça veut ci suñu compagnonnage yëpp bi ñu am ak ñoom. élection yi fi xew yëpp dañu leen bàyyi ñu jiitu. Mhm. waaye nag élection locale yi nekkoon dernière élection locale avant élection présidentielle yi di ñëw. Mhm. ñu amoon droit ne nag ñi nga xamante ne gunge nañ leen. Mhm. ñu dem ay élection demati ko di ñàkk. kon am nañ constat bu wér te résultat yi montre waat na ko que ne suñu coalition ñi ñu jiital nekkuñu ñi ñu waroon a jiital man ma xamoon ko bien en avance ma man damay samp suma ndënd mhm. pour nekk candidat mhm. ne serait-ce pour le prince. lu tax nga dem ci tête de liste proportionnelle. lu tax ma dem tête de liste proportionnelle. loolu tamit xëy na ci bëgg coalition bi ñu yéene woon ne fa la ñuy dem ak lañ ñu waxoon. donte defuñu ko loolu moom moo tax ba dem ba nga xamante ne nii mbir ya wees na ñu gis ne lii rek moom moo fi mun a xew par réglage yu ñu doon def ay la yewén nag duñ ne su ma jiituwul rek bàyyi loolu du man su ma mhm. jiituwul rek bàyyi loolu du man mhm. ñu jàpp ne réglage yi ñu doon def au nord ñu jiital un socialiste mhm. te ñetti commune la à l'est ñu jiital Maam Jaara Fam à l'ouest yalla na won ñu jital APR. parce que ci coalition bi nga xamante ni mhm. man. tur wi ci man la jógee. wa Thiès hmm. parce que dafa amone dualité. Mhm. ñuy wax nitu Thiès ñun ñu né ñun ni ñu catalogué nitu Thiès ñun duñu ñooñu ñun wa Thiès lañu tour bobu man mako ko ok kon duma dem ba au dernier moment réglage défavorable ci man. Mhm. man ni damay bàyyi c'est mon frère. Mhm. on a fait le collège ensemble. duñ ne dañ koy suñ ko ma bañ loolu du ngor. Mhm. d'accord lu ma Andag mhm. procuration. Nous au dernier moment. parti bi. Japonais jàpp pression Japonais, socialiste américain candidat la a la coalition nu waxtaan ak man ña ma ko joxoon ci njëkk ma delloo leen procuration bi parce que man luy affaiblir le parti socialiste duñ ci dégg Moustapha Diaw mm-hmm. mais xam nga li taxoon ma bëgg a xam nga Pape soo seetluwee mm-hmm. depuis presque 15 ans élection yi am yëpp la kenn du gis le bulletin vert marqué de l'étoile rouge au milieu du parti socialiste mais loolu dé bi gëna a bi gëna a moy mm-hmm. dé bobu élection du am. mais dañuy dem ba les générations yi nga xamante ni nii ñoo xamoon parti socialiste. dootuñu xamati lan moy parti socialiste parce que duñu gis bulletin non deug la loolu moom la. mais loolu pour un combat de principe pour le parti socialiste. moi je me suis dit. que il faut que parti socialiste. Mm-hmm. am un bulletin. Mm-hmm. ci élection yi parce que suñu absence. Mm-hmm. ci élection yi fay bëgg a da fay bëgg a da fay bëgg durer et que ne on risque que kenn dootul xamati ñun ñoy ñan.

di quoi defal benen réew bu nekkul sama bos parce qu'on peut avoir plusieurs pays d'adoption même si je suis fier d'avoir été adopté par la France mais j'ai qu'un seul pays de naissance c'est le Sénégal et je lui dois tout kon Sénégal dina ma jaral fu ambition gën kawe ma teg fa suma de di ci ay escalier ba mooy lan sàmm sa ngor sàmm ñi ngay digaaleel waaye sàmm yow yaay kan ak di sóor ñi la meññ ak ñi nga meññ d'accord troisième mandat loolu laa bëgg a ñu jeexalee ko après mu bàyyi la nga wax li nga xam ne moom nga bëgg wax ñi nga xam ne ñoo lay ñoo lay ñoo lay teewlu te mu toll actuellement ci 3000 personnes euh, troisième mandat bi wala troisième candidature président Macky Sall ñu bari ñu ngi koy soulever di wax nag moom nag waxagul dara donte ni am na ay jéego yu muy teg yoo xam peut-être moo tax gars yi des fois seen xel di jaaxa parce que wax na ni juridiquement amul dara lu ko empêché est-ce que yow tu es pour ou contre la euh, troisième candidature du président Macky Sall. ce que je vais dire est assez paradoxal et cocasse. Hmm. c'est-à-dire que moi je suis contre la limitation des mandats. d'abord euh, deuxièmement si on avait une autre émission ma expliquer le lu tax ma contre ko deuxièmement par contre je suis pour le respect strict de la parole donnée nit soo sa cadeau. Mhm. limitation des mandats c'est un continent en construction on ne doit pas limiter imiter les occidentaux qui ont un continent en gestion et non un continent en construction l'Afrique est un continent en construction. Mhm. avoir un mandat de 5 ans. Mhm. deux mandats de 5 ans. Alors que la politique ou être chef d'État, on l'apprend dans aucune université au monde. Moi, je pense que limiter les mandats, c'est limiter le développement de l'Afrique. Troisième, deuxième hypothèse, la Constitution limite les mandats. Quand on dit que quand on a plus de 75 ans, on ne peut plus être candidat à une élection présidentielle, je pense qu'il y a une limitation de fait dans la Constitution on ne devrait pas limiter les mandats parce que si nous nous targuons toujours de dire astaf maa ngi wax tubaab bari su fekkente ne ñun dañuy wax toujours que le Sénégal peuple bu mature électoralement parce que ñu ngay voté depuis plus de trois siècles kon war nañoo jàpp ne ku fi ñëw. soo deful li askan bi bëgg. dañ la fiy jëlé lolu leer na <laughs> voilà. lolu <laughs> leer na euh, lan moy nekk cadeau gu muju ñu bàyyi la nga wax ak euh, askan yi nga xam ne ñoo lay seetaan euh, fi mu toll nii fépp ëmb partout ci ci réew mi ak dans quinze pays d'Afrique francophone. alors kaddu mujj bi Pape mooy félicité la. Mm-hmm. parce que moi je suis de nature très calme dans les médias su may seetaan. Mm-hmm. et tey xaw nga génnee un peu euh, jikko kii bi parce que damay bañ ku ma ku ma kii. d'habitude damay calme même suñ may cuuc damay calme. Mm-hmm. mais tey xaw nga ma xam ñi may seetaan dinañ découvrir beneen Moustapha Diaw parce que yaa ngi génne et ça c'est du talent d'abord je te félicite et t'encourage parce que je suis un homme de média. beneen bi mooy suma message ci Sénégal la jëm nañu bañ que ne Sénégal ñaari nit ñoo fi nekk seen avenir ñoom ci la askan bi yépp war a dépendre nañu gëm ne Sénégal ku mu mënti doon ki ki yore pouvoir bi tey ak ki koy wut suba amul kenn ku bakkanam gën a important bakkanu beneen sénégalais nañu delloo si waat suñu xel ku ñuy déglu di ko defendre mu ñuy jaay projet nañu wax projet bi moom mooy lan ki nga xamante ne nii moo fi nekk walla ñun ñi fi nekk un bilan du projet d'avenir nañu accentuer wu ñun ñi nga xamantene ni nii ñoo yore le pouvoir actuellement wax li ñu jotagum def waaye nak lolu wess na nañu proposer sénégalais yi que ne ëllëg buñ fi continuer nek ñun li lañuy ñuy defal waa Sénégal lolu moy suma kàddu gi mujj te ñu wut ñun ñëpp lañu wut jamm surtout jamm moy li nga xamantene ni mom la sénégalais bu nek bu xëyee lan la wara def tay ci Sénégal situation bi muy dund lan la. Mm-hmm. lan la wara mëna def ba jamm am bu ko ñëpp defee rek. Sénégal dina am jàmm te njariñu ñëpp kii wut ak ki bëgg a ak am li muy am mu ngi dépendre ci jàmm jooju. très clair voilà. en tout cas cant ak ngërëm ñeel na la. maa ngi lay maa ngi lay sant bu mhm. ci euh, wuyu si bi nga xamni ne wuyu si nga ko euh, télé bi di Teranga Sénégal TV. Euh, c'est la première fois ma am ak yow jotaay mais j'ai été séduit. Mhm. vraiment ci clarté des des réponses. Mhm. xam nga l'émission c'est format bi nii lay demee. Mhm. Euh, faram fàcce la genre confrontation la leen rek moo moo ko waral mooy ngir bëgg rek ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre ñu mën a génne li nekk ci nga xam ne moom moom toogal. Mhm. wax na ko ngeen dégg ko. loolu mooy solo si émission bi en tout cas ñu ngi lay ñaanal borom bi sàmm la. amiin Pape j'ai été séduit par euh, ce ce ce discours mais pas seulement par ce discours rek mais aussi par ton parcours. j'ai l'habitude de dire que ni il ne faut jamais ñuy limiter wu ñun ñi nga xam ne fal ci discours parce que discours amna solo parce que nak Dieu n'a communiquer qu'à travers le le, le verbe. Ah ouais absolument waaye nak liko solo moy jëf. Hmm. parce que waxul ahsanu qawla waaye ahsanu amala la wax. très bien waaw liko solo moy jëf te jëf bokk na ci parcours mo lay may tay nga mën a wax ñu mën laa déglu parce que dañuy xam ne kii am na jaar-jaar bi mate na ko am na doyo bi loolu itam gis nañ ko ci yow. Euh, loolu nag ñu ngi lay ñaanal borom bi. gën damay faral di ñi may tooñ di wax. ancien militaire la. Mm-hmm. man leen c'est que c'est que vous ne savez pas ça c'est une pour rigoler. Eh, eh, eh. Eh, un militaire peut devenir un bon homme politique. Mm-hmm. mais un homme politique ne deviendra jamais un militaire. merci euh, papa. papa je et puis félicitations aux techniciens. Ah. il est excellent. papa kon a na papa dégg nga. <laughs> merci ayca loolu moom bég naa ci trop. nit ñëw fii daa day apprécier suñuy techniciens loolu moom bégg naa ci papa. gis nga gis naa médine bi nga génn en tout cas bégg nañ ci gis nañu aussi mbooloo mi am na solo trop di la ñaanal borom bi sàmm la di sant aussi DJ Lion mi nga xam ni moo nekk ci son bi DJ léegi moom je pense que son bi naa si bu ko defee di sant sama gars yi ñoom Sobel euh, dafa am nag ñu fi nekk am ay tur yu ñaaw ay Sobel. ay Latir. non des vrais africains. waaw ay c' est waaw ay tur yu ñaaw sax yoo xam ne mooy loolu quoi <laughs> ay alsaan kitaan ak. ah bon. bu <laughs> defee maa ngi leen di sant bu baax baax. di sant mm-hmm. nag suñu suñu DGA. Mm-hmm. mi nga xam ni xam naa ni moom ma nga toogoon ca ca bureau am di ñu di ñu seetaan muy soxna Anta Fall. Mm-hmm. Euh, di euh, di leen wax na ngeen xaar émission bi nga xam ni moo war a am léegi muy Mbacke Ndiaye notre frère l'africain je pense que mi ngi war a waxtaanee le panafricanisme. Ah, gars koy xaar bu baax baax bu rek euh, c'était votre émission 60 minutes chrono tey ma daloon ci ki nga xam Diaw di porte-parole de l'union régionale PS Thiès di secrétaire général section Randoulène aussi nekk aussi membre du bureau du bureau politique fonctionnaire international nekk ancien légionnaire gars yi ñu ngi di sant di li ma doon seen émission 60 minutes chrono di leen ñaanal ngeen di am jàmm ñuy am jàmm ba samedi ak jàmm ci beneen numéro 60 minutes chrono jërë ngeen jëf. bon merci Pape.